يضر أن منك يا الله مليم يميني وأقل بزار يا مليك بلا إسان بن بيجو دين منك يا الله خدست سري يا قدوس متليا عني وعن كرادي tuddaal yàllaaw anta salaamu yaasi salam takun liyaamin uyoo bi nafsi bi tay yindin ka yàllaaw anta salaamu la waaw màggal gi wax dëgg yàlla ni ñu ko organisé dafa gën a kayawaat gën a yokkuwaat baax a baax ndax sëñ Abo daa jox uh, sëñ Cheikh Anta ndigal mu jox si Cheikh Abdou imaam di doomi sëñ Amdi ànd ak sëñ Jiilim sëñ Ebo mi nga xam mooy coordonnateur bi ak sëñ Saam sëñ Guédé mi nga xam ne moo jiite uh, commission culturelle bi ñu def ko ci ay plateau yu wuute ci télé yi ak ci rajo yi ak ci internet yi waaye njàngkaay mii nag nga xam moom la gën a fonk moom moom rek mooy mbir mi mu taxaw taxawaay boo xam ni gën na am mus am la ñuy wax sax la mag ñi wax ni mus am ngir yokk gi nga xam Sëriñ Tuubaa yoonam koy yokk ku ñëw rek indi loo xam ne maanaam day day fawqa la weesu ko day mel daal organisation daal foo ko takk ci wàllu waxtaan yi wàllu bind wàllu xam ne borom gaawaan loolu moom foo ko takk rek weesu donc boo xoolee. Euh, màggal gi daa ja day woon a jamonoy waaye tu Daaru Salaam moom moo mag ci màggal yi mooy tawu màggal yi mooy première màggal gu Sëriñ Tuubaa moo waral nit ñi buñ doon faasu dañuy ñëw. ndax Sëñ Tuubaa daa si nga ne ko ku fanaan buy dellu am xayra maraam ko aajo bu ñëwee yàlla faj ko suuf si ku ñu teg sa tànk yàlla yàlla jéggal la moo waral bisi moom xamewul boo xoolee corona xamewul du lu ko daaw gi nga boo xoolee daaw ñëpp jaaxle ñun dañoo ñëw maanaam brusquement ñëw baax a baax bi mu ñëw ci la taw bëgg dem bi ñëw xamante si kenn mi ci la ñëpp sébulu daaw ci la ñëpp sébulu ci Sénégal gépp kon bis moom mën naa ne sëñ bi xamul boo xoolee nawet xamul noor xamul am xamul ñàkk xamul feebar xamul wér moom. sëñ Tuubaa bi mu jógee géej daa ngeen yàlla ne ko bi moo ñibbi naa ñibbi wàcc Daaru Salaam ñu gane lee ma fa daje fa ak jullit ñi ak murit yi ak ñëpp ñëw daje man foofa. bis boobu nag moom 1903 moo tax bis boobu la ñuy màggal sëñ bi moo ma ci màgg mag yi. fekkee màggal gi seex yi fekkee ko ay doom fekkee ko. mu toog ci taax mi lal mi ba mu toog ba léegi lal boobu ba léegi moo ngi fi ñëpp siyaare ko bis boobu nga xam maam moo ubbi màggal yi mooy day màggal yi ba mu woon benn màggal du am boobu mooy mooy màggal gi te yàlla Sëñ Tuubaa wax na ni bis bi kat maa ngaan yàlla ku fi teew ala faj aajo lu fa waay ñaan day jeex kun ku fi fanaan boo génn di am xayma maraam mooy li nga bëgg ci santé li nga bëgg ci am am bëgg ko ci njaboot bëgg lépp loolu mu ngi ci xayma maraam. waaw ba léegi ñu ngi jàng li ñuy jàng ëpp na sëñ ba da koo yokkaat woo daaree njaareem yi Touba si daara bu daw ñëw bu nekk mu ngi ñëw ren ren man la li ñuy xëy ëpp na junni ak lu ëpp lu teg kon loolu moom ah, ngoon lañ koy jamu jok ko bi waaye ma xamal daal juróom fan daal la ñuy jàng ba léegi junni moom teg na ay téeméeri di dem kon loolu moom te ñi ñëpp fi lañ koy jàngee ne ñi ñi jàng ci àll bi jëluñu leen de boolu booluñu lim mooy ñi fee ñëw oto yi jël leen ñuy yend di leen teral di leen jox bernde ñooñu liñ jàng dëkk bi lañ wax moo tolloo ay junni junni. màggal gi fi dool moo baax ci saa moo baax ci réew mi. mag goo xam ne joxe ñam joxe kilifa yi teew nga jàng alxuraan ñaan yàlla moo waral mbas mi sax gis naa ma mbas mi lu bëree bëri sax min lu ne waroon mel mag gi moo ko waral bu daaw gi nga kaw mi ni mu bëree ren ji gis nga boo xoolee béykat yi ñëpp a sébul kon wàllu santé bi bàyyi nañ ko xel baax a baax te mooy ñaan yéen itam daa waxoon ni feebar lu koy yóbbu mooy ñaan te màggal gi ñaan la magul nangu ñaan la magul faj aajo la boo xool yaa mu'minu fi janna bi durrama kadarin waabliyal am na fi daarayni yaa allahum wa bil mu'aymini lis abi istiraay kama xabitu sirran ilal jamaati yaa allahum أتى العزيز ناسي عطي بإيستي إذا يقال لدول التكريم يا الله أجبرت لي إمات الجبار دون لقم كل الإداء بلاسي لاخترت يا الله أجبرت لي إنك جبار دون الإنقاذ كل الإداد بنفسي لاخترت يا الله كرهتني كل في كبر بلا كل في يا متكبر تلك يا الله يا غير عبادا بالبر والسر والرضوان يا الله يا بارع الخلق قد لنا فدعونا سن وخن الأجر للجماعة يا الله أنت المساور قل للنبي بسارا وساورا ليادو nal makr ya allah غفرت لي كل سن بالغاد أتيت بي لزاد بسكريا يا رابح يا الله غفرت لي كل سن بالغاد أتيت بي لزاد بسكريا يا قذار يا الله دعي بلا سبب مني غمدتك يا خار يا الله وابتلي منك سوء لنباخ مسألتي فلا كسب ريايا man maa ngi tudd Serigne Modou Mamoun Gueye man maa ngi bàyyeekoo cees quartier bu naan Medina Fall waaw yëg-yëg mooy taw feex rek man maam Cheikh Anta Mbacke rek moo nekk sama xol bi dara néewu fi. gi am mooy bi taalibe yëpp di am rek waaw ñun dañuy gën a bëgg maam Cheikh Anta Gawane chaque instant chaque jour. mu mel waaw daaw ku ne xam na ni période Covid bi la sëñ bi dafa joxe woon ndigal pour ñu màggale ko fañ dëkk ku nekk. ñu wàccee alxuraan jàng alxuraan bernde foofu ñu dëkk ak xasida yi ren nag beneen contexte la waaw danoo jot ndigal pour màggal si gis nga Daaru Salaam ren ni mel taw rek day yokk dañuy yokk ba yëg ko barke maam Chanta Mbacke. ana li waaw li may soññee mooy ñu gën a takkaat laxasaay rek. waaw comme ni ñu digale màggal gi muy jàng alxuraan waaw xasida ak bernde loolu rek mooy màggal gi. Serigne Modou Mamoun Gueye waaw taalibe Maam Cheikh Anta baa ngi nii. Xaadim Ndiaye ndongole Xaadim Ndiaye taalibe Serigne Cheikh Abdou Mbacke. waaw am contentement bu wér rek ak mbégte ci bis bu tedd bi bis bu màgg bii di bisu Maam Cheikh bi waaw di ci soññawaat murid yëpp rek di seen li nga xay ne moo xew fii tey jii ku ñëw Daaru Salaam rek dina xam ne ñëw na ci bis bu mu a ñëw waaw di bisu Maam Cheikh di bisu ko am ngërëm di bisu borom dërëm borom ngërëm Serigne Touba defar ko ci at wàll wu kon bis bi ku ci ñëw rek di nga am saxaadatu daara ni ak tawféex ak saxaadatu daara xew xéwal yaatu. maam Cheikh euh, daal daa doonoon jëmm joo xam ne jëmm ju baax la doonoon jënn jëm léppam mu jël ko jox ko Serigne Touba léppam Serigne Touba la ko joxoon mën na noo wax ne Serigne Touba moo doonoon léppam ndax dégg naa sax ci gaayu baax yi ñu ne daara juñ ko masaana yóbbu nga xëy ne fa daan jàng jee da daan fépp foo jataay boo xëy ne Serigne Touba néew fa man duma fa toog Serigne Touba nekk rek fa laay dem ba baayam woolu ko ne ko seex dama laa jàngaloo mu ne ko ah, danga maa jàngaloo de waaye fépp foo xëy ne jataay boo xëy ne Serigne Touba nekk fa man duma fa nekk keroog la ko Serigne Touba ne ko seex dinaa def ci yow lu gën alxuraan te loolu wér na tey jii ku ñëw ci daar Salaam ji di nga xam ne la Serigne Touba waxoon dara du ci dañ salaamualeykum wa